4 mars am nañu nit mu waral tey réew mi follaal mu ngi métti fi réew mi tollu tey ndaw ñi yaakaaroon ko muy marchand ambulant yi ñu jël askanum lëmb jaay leen ab projet boo xam ne existé wul que sur seen imagination mooy tas yaakaar bu bon bu mag mënta weesu loolu ma jël décision tey si bés bii démissionné sama poste président du conseil d' administration au niveau de l' office national de formation professionnelle ngir feete woo askan bi nga xamante ne tey seen yaakaar tas na am nañu naqar ci li nga xamante ne moo leen jox